euh, je voudrais, au nom de mes excellents confrères ici présents, en mon nom personnel, vous présenter nos plates excuses pour le retard apporté au démarrage de nos travaux. Euh, sans entrer dans les détails donc, euh, et sans perdre plus de temps, Je m'en vais donner la parole à Maître Ousseïd Noufal, ici présent à euh, vous entretenir euh, rapidement du sujet et qui a valu ces quelques Je vous remercie. Euh, mon cher confrère et ami. je suis peiné. désolé de ce retard, comme vous l'avez remarqué. Nous aurions souhaité tenir cette euh, conférence de presse pour euh, le leader du passé, Ousmane Sonko. Votre présence vraiment montre l'intérêt attaché à, à cette affaire. Mais je disais à l'entame que je suis peiné, je ne dirais pas indigné, parce que nous appartenons à un ordre. Nous sommes des avocats et nous appartenons à un ordre. L'ordre des avocats du Sénégal. nous avions décidé de tenir cette conférence de presse pour vous parler de l'affaire dite des 94 milliards et vous parler de nos actions. Cependant, la dernière minute, à la dernière minute, Mon jeune confrère Sall m'a donné le, son portable pour m'informer de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats, représenté par son secrétaire général. À la dernière minute, on m'a dit au téléphone, alors que nous, nous avions adressé une lettre préalable d'information pour notre conférence de presse de ce jour. c'est à la dernière minute que le secrétaire général de l'ordre m'a, nous a appelés pour nous informer de l'interdiction de la tenue de cette conférence de presse. Nous sommes vraiment désolés de devoir reporter cette conférence de presse parce que nous aurions tant aimé apporter un tant soit peu d'éclairage sur cette affaire dite des 94 milliards. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas déflorer le sujet, parce compte tenu du respect de cette interdiction. Je ne vous donne pas une date ultérieure, mais on vous communiquera la prochaine conférence de presse, Inch'Allah. yàlla nañu fi yàlla en wolof. Ah, je ma si si wolof j'aurais souhaité que mon jeune confrère Sall euh, <laughs> vraiment vous le dise. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ngi leen di gërëm di leen sant si mobilisation exceptionnelle bi ngeen def bokkoon nañu waxtaan ak yéen ci turu ki nga xam ni moo waral te yabal ñu muy sunu mandat muy le monsieur Ousmane Sonko député à national nationale président du parti PASTEF bind nañ. ñi ñu war a bind pour yëgal leen conférence de presse bi ñu waroon te tenir tey mais malheureusement à la dernière minute woon nañu comme ni ko sama confrère bi waxee léegi sama doyen woon nañu pour wax ni kilifa gi nga xam ni moo comme ñun dañoo bokk si benn ordre kilifa gi nga xam ni moo jiite aaye na pour conférence presse bi am dinañ leen jox date bi nga xam ni reporté nañ ko incha allah ci fan yii di ñëw waaye wax nañ ni rek man ko suñu désolation te bëgguñu ko nii yàlla dogalee. ñu ngi leen lu ci mën mu ne. waaw xam nga fu fu mu nekk nii. jox euh, que joxuñu motif bi parce que léegi léegi à l'instant nañ ñu wax que dañ tere ñun nag ñun nag suñu aajo. mooy suñu défense bi kenn kenn kenn kenn du ko faiblir kenn kenn kenn du ko yàq ah donc loolu moo tax fu mu nekk nii mënuñu leen jox motif te mënuñu aussi continuer ci conférence de press bi léegi dañuy conféré dañuy yàlla may wër gi yaram jàmm fan yi euh, bu ñëw bu soobee yàlla dañu yàlla may ñu fekk ko tal ko dinañ fi dajawaat je vous remercie